Écoutez et vous entendrez. Regardez, vous verrez. Dès son jeune âge, il a commencé à tâter le micro et aujourd'hui, il devient l'un des plus grands animateurs de ce pays. Mesdames messieurs, permettez-moi de vous présenter le fils de Saint-Louis du Sénégal, le du Mesdames messieurs, voici Le prince est là, Richard from Saint-Louis Sénégal. Il a un savoir-faire inouï. Il est éloquent. jërëjëf ki nekk ci ligne bi salaamaaleykum. what's your name. di Ndiakhate Sall ma lay jógee. yow waxal waay. akub sig lañ wax. Hmm. waxtaanee ko rek foo. gis naa Sall doy de talent, avec beaucoup de style. li la. waaw man sa yére bi rek moo may rey quoi. yaa ngi toj tiktok bi la ma làmmee mu jag-jagi xaaral ma laalat bant. Mesdames, Messieurs, tous les artistes qui font le buzz, tous les artistes qu'on avait presque oubliés et tous les artistes qui veulent de la visibilité et de la promotion passent ipso facto par lui, car c'est l'animateur du moment. bilaay. yow moo ma def oh, def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen bu ngeen ko deful ni ko yàlla def kat mu cravaché leen ba ngeen tëdd xëcaa yaa fi ne. du lundi au jeudi de 11 à 13 sur la 2STV. Ne le ratez pas. Ne ratez pas l'occasion qui dissipe vos soucis et puis vous permet véritablement de vivre et d'aller dans d'autres mondes inimaginables. Amis chers téléspectateurs, c'est avec un enthousiasme sans égal que nous nous retrouvons devant vous dans le seul but de vous apaiser, mais aussi et surtout vous divertir. Bonjour à toutes et tous et bienvenue au Parc des Princes de la 2STV, la télévision autrement la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous dis bonjour et bienvenue. Votre ami et frère est de retour. Kheucha de retour. Maa ngi leen di kontaane di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tout ce qui nous regarde à l'étranger, en France, États-Unis Canada de l'autre côté en Espagne on regarde également foofu nga xamante ni moom moo euh, ca Italiano bonjour à tous qui nous regardent également ici en Afrique bokk na Mali Burkina Faso Bénin Côte d'Ivoire euh, Zimbabwe foofu nga xamante ni Cap-Vert on regarde également de l'autre côté foofu nga xamante ni euh, moom moo di ca Congo Brazzaville de l'autre côté au Cameroun waaye également les Ivoiriens Euh, moom moo di ca Guinée Bissau waaye itam Mauritanie wanni bik marhaba bik Mauritanie maa ngi leen di siyaare ñoom itam di leen jox seen wàccuwaay bu baax baax et bonjour également à tous qui nous regardent de l'autre côté euh, in Gambia my second country I think that you are good and everything is right everything is okay keroog ñu ngi leen the best euh, ci élection yi gis nañ jaar na ci yoon et que ñu ngi ñaanal jàmm ak tawfeex ak sutura yéen ñooñu nga bokk euh, nga xam ne ñu ngi seetaan fii ci Ndakaaru Ndiaye euh, Jal Diop Sangomar yéen itam kenn du yéen ñi leen di jox seen wàccuwaay euh, di leen nuyu bu baax baax Thiès benn dëkk ñaari gaar Kolda Kaffrine foofu nga xamante moom moo di ca Ziguinchor Matam Sédhiou foofu nga xamante moom moo di ca Bakel gis nga Mor Sall mi Alaaji Bàcc foo nga wax moom dóor ko kurpeñ wala ñu am lu ñu wax moom parce que lii mu def nii yow la neex yow Alaaji Bàcc te <laughs> damba na topp ne la waaye ay jë ñu ngi siyaare bu baax a baax mamaa roqee alaaji almalik maa ngi koy siyaare moom itam l'international ay sama gars yi aujourd'hui c'est l'anniversaire de Grégoire moo tax sax ma nekk en retard parce que j'avais euh, quelque chose à gérer donc maa ngi ci suuf di gérer ak moom euh, moom Grégoire euh, tey la anniversaire am donc ku wootee li ngay njëkk a wax moom mooy joyeux anniversaire à Grégoire Grégoire mi nga xamante ni c'est le plus court de sa génération le plus court de la 2STV moo gën a ci télé bi kon nag da ngeen koy souhaiter un happy birthday with Chico de Bells fii ci télé bi ñu souhaiter tey nag dina nekk fii ak man ñëw waxtaan ak yéen aussi Gré donc prépare-toi davantage da ngay da am na ku kuy ñëw deuxième mi-temps euh, yow nga xam ne da ngay ñëw ci parc bi ñëw taxaw ak man wicc gars yi gars yi ñaanal la jox la sa sa sa cadeau xam naa ni di nga am ay 5 francs comme daaw ay 5 francs la la doon yónnee ay 10 francs ren mën na ko mën nga ko amaat quoi on sait jamais 88 628 14 13 ñu jël ki nekk ci ligne bi bonjour salaamaaleykum. allo Kheucha. oui bonjour. waa kii kan la yow. Maymuna la maa ngi lay siyaare ay noo def. maa ngi delloo ziar. baa yaa ngi am jàmm. allo allo allo je l'entends mal est-ce que mën ngeen ma yëkkatil baatam ci kaw Mounas merci quand même pour l'appel dégguma ko bu baax mën na ñëwaat ci 88 628 14 ou 13 on est lundi on a assez perdu de temps donc gré euh, dañuy dem suñu séance d'étirement rapidement euh, bu ñëwee ñu présenter leen programme bi parce que tey gars yi nag ñoom itam di leen décembre s'annonce bien Mister Grégoire c'est à toi mon ami et frère c'est parti boy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 sekk dina xepp ci sees bi def fi loo musul gis duma politique ñëpp di polémique ma jiite dëkk bi animation xale xëcca xale rap xale musique xale dama xew mel ni DJ xëcca bëri doole mel ni DJ xëcca fi ma koy yëngal di ko yëngal ba ñëpp ne man ak waaw waaw animation xale xëcca xale rap xale musique xale dama xew mel ni DJ xëcca bëri doole mel ni DJ xëcca fi ma koy yëngal di ko yëngal ba ñëpp ne man my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 yaa yaa yóbbu ko ci beneen kii bi ñu dem très rapidement merci beaucoup à l'international ki nga xamante ni euh, moom moo di euh, euh, son altesse un garçon pétri de talent d'une autre dimension également donc plainte bi dama koy déposé ci kanam ki nga xamante ni moom moo di Modou Sow ndaxte Alaaji Bàccili li mu la def nii waruloo ko def ah ñu teel a ñëw ci sunu parc bi ñu jàpp parc bi def ko seen émission ah yokkal ma samay lumière xaw ma dañ ko zonal vertal ko naan ay c'est le meilleur Modou Sow fii alaaji bàccilee fi ne nañ ko wax dee waaw jàllale leen ma message bi naka naka ñëpp xam alaaji bàccil yaa ne moo gas sur bu doon ak du mel nii ay ta jërëjëfati merci beaucoup euh, très rapidement les amis on est lundi comme tous les lundis xam programme yi ma leen digmaloon euh, gré euh, boole ko ci ki nga xamante moom moo di dajju c'est dans quelques jours waaye itam Burna Boy c'est dans quelques nekk ci ligne bi bonjour maaleykum waa mais kii kan la yow. Kheucha bëgg naa la barke Serigne Touba. eh foo ma def yow. Kheucha bëgg naa la. mari bi rek laa bëgg ba la passé sama kër du bëriwul. waa fan ngay wootee waaye dëkk bu Diourbel. yaa ngi wootee. Diourbel Diourbel. maa ngi lay nuyu di siyaare waa Diourbel yaa ngi am jàmm quand même. maa ngi sant yàlla bu baax a baax maa ngi bu baax a baax koo bëgg bëgg na la maa la raw dégg waaw ah oui Soxna Saliou Sagnse moo fi des. dégg la mais sama xeetu pull day day dara waxal joyeux anniversaire à Grégoire. ah joyeux anniversaire à Grégoire. non tey moom kenn du ko tooñ tey lu lu mu bëgg rek lañ koy defal nee ko kenn du ko tooñ tey. waaw blouson blouson bi laa bëgg nag rafet na trop. waaw ah, mais merci beaucoup merci beaucoup ça c'est Kheucha ça c'est Kheucha. Euh, ah ok baax na waaw. merci beaucoup pour l'appel quand même. ayca ñi ngi koy kontaane de l'autre côté foofu nga xamante ni moom moo di ca Diourbel euh, def leen ni moom euh, je euh, a maye décembre c'est dans quelques jours Burna Boy le décembre c'est dans quelques jours lépp rek di ngeen sur la 2STV en exclusivité véritablement ce samedi nous serons de l'autre côté à Kaolack Nangaan waa Nangaan da ngeen mën na moon Eh, dugal leen seen appel xam loolu dëgg la am ci yéen wala du dëgg te ngeen ñëw jël seen ticket léegi léegi ci 88 628 14 13 Mister Gré on est lundi et comme tous les lundis mais tey nag li ma gën kontaan loo Grégoire mooy déjà sa anniversaire la mais artistes yi clip yu nu génne ci mois de décembre dafa tegaloo. artistes yëpp a génne et ce qui m'a fait vraiment plaisir c'est de voir les artistes sénégalais ku ci ne di génne ay œuvres yoo xam ni sénégalais dañ ko bëgg Instagram ainsi de suite ça me fait énormément plaisir très rapidement euh, ci xale bi ni njëkkee euh, euh, wala ñu dem ci ñoom déjà seen séance d'étirement daal di bégal ma daal di yëngal sama yaram tàng y va avec l'international ki nga xam ne moom moo di Benjamin en compagnie de Cheikh Niane c'est parti. les meilleurs moyens pour promouvoir l'intégration après des disciples comme le sport ce cadre que pour stimuler l'intégration africaine, de talentueux musiciens ont pensé à matérialiser un concept appelé Sénémali. Il s'agira alors pour ce jeune claviste du Sénégal, Fallou Benjamin, que l'on connaît tous sans doute, qui affirme son alliance avec la pépite malienne qui ne se présente plus, à savoir Chernian. Mesdames et messieurs, du clavier à la guitare, vous verrez de vous-même le même que procure la musique, sa capacité à concilier nos d'ambiance et de joie. Écoutez et regardez. journal Miss Degré merci beaucoup on enchaîne très rapidement euh, sur les 88 628 14 13 à l'international en bas des euh, defee nag ñu mën a ibbi mu yaatu ak yéen ndaxte namoon ngeen ma te namoon naa leen xam naa ko euh, ba tax na su leen leen di jotee ligne bi day saturé waaye essayez véritablement ngeen dugg ñu mën leen may ci ticket yi nga xamante ni wax dëgg yàlla ay événement la yu ñu dëgmal fii sur la 2 bokk na ci kii di ñëw 88 628 14 13 ñu jël ko bonjour salaamaaleykum ayaya Iloel est parti na ñëwaat ci 88 628 14 13 très rapidement moom itam mu mën a bokk ci euh, euh, euh, li nga xam ni tey mën nañ ko ci ay maye ticket ci événement yii di ñëw ci bi kër gi di nga xamante ni moom mooy la 2STV di masaw bu baax a baax démb làmb jooju nga xam ni jot na fee am ndaxte ku ci nekk ci ñun bëggoon na mu jaar yoon ba Sénégalais yëpp gis ci seen bopp ndaxte combat la boo xam ne depuis plus de deux ans gars ñee ngi koy préparé mais violence comme li ñu ciy wax rek bu ci arène génnul ci sport fii ci Sénégal lu dina yàqu nañu yaraat sunu bopp yara joxali nii di baale te di jéggale ndaxte am na solo donc ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax 88 628 14 13 ñu jël ki nekk ci ligne bi bonjour salaamaaleykum. bonjour Kheucha ça va man maa ngi woote woon léegi mais. allo. allo Maymuna. Maymuna. maa fi woote woon. waaw Maymuna mu. maa fi. yaa ngi cool. waaw yaa ngi dee fine fooy wootee. Gambie tey la sama anniversaire rek dama bëgg nga souhaital ma euh, wax de Maymuna. ma ne tey la sama anniversaire rek Khadija tey la anniversaire tom day am El Malick boo paree laal ma kii bi waa nga ni. souhaital ma ko joyeux. waaw d'accord dinaa ko souhaiter léegi léegi xanaa moom jumeau Grégoire la. waaw jumeau la. waaw d'accord léegi dinaa ko souhaiter léegi léegi moom Khadija dégg merci thank you lay kontaane merci beaucoup et joyeux anniversaire à Khadija petite sœur véritablement ñu ngi lay souhaiter la totale happy birthday jumelle à Grégoire l'international moom itam day euh, fêter anniversaire am tey donc Khadija yow loo dund ñu ngi lay wish all the best happy birthday to you et joyeux anniversaire très rapidement Miss Gré un garçon euh, vient véritablement de marquer sa carrière avec euh, benn clip bu doy waar boo xamante ni actuellement ça déchire ça cartonne un peu partout j'adore regardez le l'intégralité wala njël ki ne ci ligne ba pare 88 628 14 13 salaamaaleykum allo. allo oui. oui bonjour. bonjour Kheucha. waaw kii kan la yow. allo. aïe aïe aïe elle est partie mën nañu waat ci 88 628 14 13 à l'international euh, juste très très très belle chanson d'amour jaraloon nga ma lu ne léeg-léeg jigéen jaral la lu bari ah jaraloon na loo xamante ni wax dëgg yàlla doo mën sax xam nu mu toll mais day jékk saa yi changé wala mu changé comportement changé avis ba mu tax yow da nga koy da koy da nga koy da nga koy message wala nga envoyé ko wala nga woo sax ni jaraloon nga ma lu ne mais vraiment tu m'as donc comme comme rek ni muy def xale jigéen ñi moom ni mu ciy jël day bari de telle sorte que ñi nga xam ne yéen a ngi toog yéen nee leen ko kan la doon waxal mi ngi doon waxal benn xale bu xees xaw ma ci nag kan la ci yéen bu fekkee dafa am ku ñuul dugalal sa appel instant yi nii foofa daal toj <laughs> ki sëñ Tuubaa da ngay jàppoon ni sa sa anniversaire bi doo feeñ waaye xam nga ñëpp ngay invité ndoo ci biir affaire bi yow loolu lépp dinañ ko gérer yow Grégoire très rapidement les amis merci beaucoup à ce garçon euh, dans l'unique actuellement euh, euh, titre bi c'est disponible sur YouTube allez liker commenter partager la toute nouvelle vidéo de l'international kooku nga xamante ni di Dan ñu koy maa ngi lay nuyu yaay Dan moom itam maa ngi koy kontaane affaire yu baax yónnee naa la message aussi whatsapp wool wool Modou Sow Modou Sow mi foog nga woo ko tey 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum xamoon naa ne cat dina ko dugg salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. allo oui. oui bonjour. bonjour. ay eh, kii kan la yow. maaleykum salaam. ma ne kii la. allo oui. ay ah, yéen alaaj bàcc li wax mu mu mu wàññi volume am te nga yokkal ma ko moom retouram fii ci kaw ma gën ko dégg yaa may dégg mama maa ngi lay siyaare noo def allo alors euh, s'il vous plaît euh, ci suuf euh, mu gën a wàññi teleem ndaxte dafay am décalage noo mama wàññi woo sa télé de voilà ma lay doog a yokkal nga ni mama alors euh, ñëwaatal ci 88 628 14 ou 13 ñu mën la jalaat léegi léegi très rapidement moment la woon merci beaucoup alors euh, keneen ki nga xamante ni euh, ce 4 décembre passé stadium Iba Mar Diop da ko duy ko diw man musuma gis stade Iba Mar Diop mel noonu pour dire vrai peut-être qu'il est un digne fils véritablement de la Médina raison pour laquelle banlieue Médina yëpp a génn presque del El Diaz encore une fois très cher donc titre bu bees bi ma may leen ko aussi en exclusivité activité actuellement tu déchires mon gars tu cartonnes mon gars El Jazz pour votre plaisir c'est parti ayca ba bala may sa sama askan Dakar Medina sama makkan jaxase lépp si ñaqali wërsëg ñu dàq ji saful ñu sàppali ñun dañu màggee si mbedd bi xeex suñu liberté mënuñu ñàkk fii du de tëdd teel a jug biiru ñay duñu teel a suur benn dëgg jikko buur duñu bàyyi dem jusqu'au bout maa ngi yàgg rab bi je m'en fous fokk rab woo bi doxatul jàpp MC yi di nokkatu même soo ma xàmmewul dégg nga sama tur ay joxo ma lekk joxo ma naan soo ma meree je m'en fous joxo ma lekk joxo ma naan kon soo ma meree bama waxal sa wax rek sa bama jippe sa bopp sa bama bu ma lijjanti yow bama bama waxal sa wax rek sa bama jippe sa bopp sa bama kaas kaas may kaas tu may gas nga dëkke suul si su man yaa ngi si suuf maa ngi si kaw ñoo ngi si suuf kontaan di bëggee nga bëggu ma mere jàmm la woote man bëgguma leneen yaa ngi yàq sama der yàq ma jiiñ lu ma deful ennemi arrête say jëf du ma merloo du ma xaati loo daf ma yokk joom bëgg fu ma seerloo va te faire foot sa xoon doo ma sa gis sama rongoñ doo dégg ñu ne la maa tooñ dara du xew ba ma tiit jërëjëf li moom gisoo ko woon waata <laughs> lan la El Hadj wax El Hadj nag yéen tamit ca ñoom dañuy yàq quoi xoolal soo mi ni mu nekkee joxoo ma lekk joxoo ma naan doo ko jàpp foofu soo ma meree je m'en fous waaye nga teg sa sa waata loolu noonu waat loolu bu ko fi def. man rappeur yi daal ñoom des fois dañuy nelaw quoi mon ami nag oh là là passe pas la télé euh, on s'excuse davantage on s'excuse vraiment on savait pas que vraiment il a de l'insulte là-dedans ñu ngi ciy jéggalu baax a baax 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum allo allo allo. allo oui. ayca bonjour salaamaaleykum. maaleykum salaam Facha. waa mais ko kan la. man la Asou Fofana depuis Kaolack. Asou borom Kaolack noo def. ñooy nii la bëggee. ba yaa ngi am jàmm looy waaj yow lan ngay waaj Asou Fofana. Wally Seck bi xanaa la 11. bii laa ko Lati Diop dégg ngeen Mbaye Diop Demba dégg ngeen Koura Fall ak dégg ngeen Demba Sey maa la lii de. ba xam ne ni ça sera en direct sur la 2STV. incha allah. ayca yow loo bëgg ticket. ticket laa bëgg ticket. bul coupé euh, Alaaji Bàcc di jël sa numéro léegi léegi VIP nag laa la may. waaw waaw saa ñu ngi lay déggee waaw parce que Kaolack gi nga dëkk yaa njëkk woote instant yi pour ñaan ticket moo tax VIP laa la laal. waaw baax na. bàcc li bindalal ma ko ci maman Sali nee ma léegi ma jox leen seen tur ñu jox ko ticket VIP am foofu ca Kaolack. merci waay jërëjëf ci Fofana. ay ca mangoogu maa ngi koy kontaanee bu baax a baax a baax yéen ñi nekk Kaolack toog di seetaan itam euh, jënd leen seen ticket parce que dégg naa réservation yi la ca des bareetul euh, bu ngeen ko jëndul lii lan ma jox la rek loo xam ni wax dëgg yàlla pour yéen ñi nga xam ni yéen a ngi nekk Kaolack nekk Dakar bëgg dem Kaolack ak ku mu mën doon moom ma leen ko may donc ça sera 10 tickets yoo xam ne 5 VIP ak 5 simple yoo xam dama koy maye euh, pour ñooñu nga xamante ni ñu ngi foofu ca Kaolack kon nag préparez-vous davantage merci beaucoup Aigre je m'excuse ci way wile ndax xam naa ni yow moom tu badines même pas avec ce genre de truc quand il y a de l'insulte non Grégoire day zappé donc moom xam naa ni tey anniversaire am bi ak message yee tax liirul affaire yu bare mais ak doy waar gaa ñu dem xool bu amee tamit non bi go am ko Bril ak Omzo Dollar ñu dem xool ñoom itam euh, lan la ñu actuellement ça déchire j'adore j'adore quand il y a pas véritablement c'est bien beau de faire euh, di way way yoo xamante wax dëgg yàlla xoolal bëgguma ay détails détails kenn bëgg ko xam nga man ay en fait xam nga bu nekkee ci télé on n'a pas droit di génne ay œuvre yoo xam ne da ngeen ciy insulté donc y a la jeunesse qui nous regarde sunu ay wayjur ñu ngi nuy seetaan sunu ay maam ñu ngi nuy seetaan donc bu ñu tegee seen ay œuvre ngeen ci saaga rek ça ça vraiment euh, day day day day passer à côté quoi éviter de d'insulter éviter d'insulter si toutefois ngeen di insulter rek après day yàq ci yéen lu bari bari ci seen image ak lépp wax nañoo wax a wax ba yoratuñu làmmiñ man nag rapport bu ci kii wat sax dootuma la teg waaw kay 88 628 14 tey ñëpp laa waxoon la de waxuma kenn ñëpp salaamaaleykum. allo allo. bonjour. Kocha. waaw mais kii kan la. kooku Maram la. ah. Mam Marème. waaw. ayca Mam Marème fooy wootee. Sédhiou laa wootee. fan Sédhiou. waaw maa la woon sant te bi coupé. ah crédit bi est waaw damaa dem dama lay woo duma la jot. da ma. ma ne dama lay woo may woo doo ma jot. waaw waaw tey dugg nga. tey dugg naa tey. yaa ngi am jàmm. sant yàlla bu baax. alors naka yëg yitte yi. Ah, mi ngi cool. cool waaw. yaa ngi koy na namoon nga ma. namoon naa bu baax sax. Eh, namoon nga ma ci weekend bi loo doon def yow. weekend bi. maa ngi toog fii di la namaraat. ndeysaan dëgg la maa ngi ni je suis de retour maa ngi leen di accompagner ba ngeen kontaan ci kàttanu yàlla. ok. en tout cas kontaan naa borom ju dégg nga. ok ayca nuyu nuyul ma waa Sédhiou yëpp ñu ngi moom itam merci beaucoup pour l' appel waa Sédhiou yéen itam euh, ñu ngi leen di jox seen merci beaucoup euh, très rapidement euh, ñu dem seetaani ki nga xamante ni l' international gré gis nga vudu yooyu noonu ci wàllu rap hip hop dafa neex waaye bu amul saaga lay dàq ayca ñeneen ñi nga xamante ni actuellement il déchire ah mooy sama deux copains Mino moom mooy Chérifou et l' international Job Sapren regardez en exclusivité toujours nee actuellement ñoom itam ñëpp ñi ngi profité ci mois de décembre fin d'année la ñu wax te ku ci ne xam na euh, lan la fin d'année di di jëriñ ci sa carrière donc ñoom ñëpp ñi ngi nii génnal ay œuvre yu neex yoo xam ne wax dëgg yàlla rien à dire il cartonne actuellement Chérifou Diop Sabren euh, comme d'habitude Machallah, j'adore, j'adore, j'adore méga sûr. Merci beaucoup. Et très rapidement, monsieur Gray on enchaîne bataille ndaxte nee naa la titre yi daa bëri waaye xale bi nga xam ne dëgg yàlla moom euh, bàyyi ma jël ki ne ci ligne ba pare 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum à ce qui paraît sama pub bi dafa rafet ñu bëri ma koy message je sais pas le pourquoi mais bon on verra salaamaaleykum. waaleykum salaam. ah <laughs> ko kan la. wala Ndeye. non comme que ma dafa nice rek nice na Daba sama ennemi nee na ma dafa nice kon nice na mais kii kan la yow. Ndeye lañ koy wax. Ndeye fooy wootee. Touba. yaa ngi Touba. yaa maa ngi lay siyaare. maa ngi lay kii kan la nga ni. Razali. ne ko nga noo nga ne yow Ndeye. xëzaa. xëzaa dégg la. <laughs> nday dara sax la lan la yow. waaw ah. sa religion lan la. non mais lu tax ngeen daan blouson li pull la pull la ah cest dire ah. jean bu noir laa def ci suuf euh, boole ak ay dàll yu weex xam nga dama mën a sañse mais pull la de. mën nga xam na ni damaa mën a sañse rek mais jo sax mi ngi naan ma aski pare pul bi dafa rafet pourtant euh, sinap bi mu ci bëgg sax jo amaguma ko bàyyi lu ma génn parce que Modou Sow tey daa ñëw ruube sama ay lumière di ma jaay euh, ni moom moom moom moom moom moo géré lumière yi tey mais nday waaw mbay nday noo def yaa ngi toog jàpp sa ñaamur di seetaan di seetaan alors ma xool nooy seetaane xam nga nu ma koy xoolee hmm. da nga may yónnee sa vidéo on serait chez jëlal numéro bii ma lay jox nday ok 77 waaw. Euh, da ngay def 77 866. 866. 02. 02. laal ma ca 43 ca fin ba. foofu toj. ayca 77 866 02 43. ok merci beaucoup ayca merci beaucoup Ndeye kontaan

allo maaleykum salaam di Kheucha. waa mais kooka la yow. eh man la Maguette depuis Kaolack. Maguette borom Kaolack noo def. sama bien. Maguette ne ma lii lan la moo xëcaa lii lan la boo lakkee dëkk bi tubaab bi jàpp la. lii lan la dama wala daam. boo lakkee dëkk bi tubaab bi jàpp la lii lan la. Max yow gi sax in ñëwal yow gi sax in demal. gitaw ra tet ki tet ra tet ki tegit tegit. mais sax bii laa bëggoon. loo bëgg billet billet waali. yow kon nag ma bëgg gis ci ci ci stade Lamine Gueye bi. waaw bëgg nga ma yàlla ma billet. Maguette da nga ma bëgg gis ma jàkkaarloog yow naan la mais Maguette ci loo nee. waaye mën naa la maa ngi nii di bëgg. xasaar dëgg la ayca bul coupé bàcc li jël sa numéro foofu. waaw merci beaucoup. merci beaucoup bindalal ma ko benn ticket simple foofu noonu moom Maxi mi ngi bokk ci euh, ñi nga xam ni war nu ñëw euh, teewee stade Lamine Gueye Waly Balago Seck incha allah rabi may naa ko ticket simple gratuit boo xam ni da koy duggee du fay dara e xoolal. yaa ko moom ayca merci beaucoup très rapidement Miss Grey on enchaîne ak ki nga xamante ni elle déchire elle cartonne comme toujours les gens l'adorent les gens l'aiment parce qu'elle a une très belle voix et elle est en train de déchirer de cartonner j'adore cette demoiselle elle se nomme tout simplement l'internationale j'adore j'adore 88 10 28 14 13 dafa mel am na ku nekk ci ligne bi oui bonjour bonjour ça va bien toi Kokala man la Aïcha Diallo. Aïcha fooy wootee. maa ngi wootee Kaolack. ah kon defu leen ngeen dégg rek ku nekk di commencé woote mayew ma waa Kaolack. gis nga de ah bu non man ak yéen a far man ak yéen du tey. billaay dafa lay. mais Aïcha noo def. maa ngi fi. Aïcha bés bi yaa koy waaj. Aïcha. oui. ma ni bés bi yaa ngi koy waaj. bu baax sax. Aïcha xam nga ni bés bi dina mel ne tuq sa bënn bu saañ ba réer. billaay yow. ah bés bi bés bi bésantuwun ko de. billaay mais si ticket laa bëggoon nag. waaw amul problème léegi dinaa la may ticket xam nga ban ticket laa la may. ah. da ngaa yàkkamti moo tax boo teyoon tuuti ma waxtaan ak yow VIP laa lay may mais laal naa la simple foofa daal di toj. ah baa coupé wul bul coupé de boo coupé bàccilu du mën a jël sa numéro simple rek l'entrée à 5000 francs et VIP donc c'est pas donné à n'importe qui bu leen coupé da ngeen di may leen ticket 5000 boo xam ni wax dëgg yàlla 10 dong la bariwut euh, fii la ci semaine bi kon ko tey maye naa waaw na des na yu ma war a maye waat woote euh, ci 88 a assez de programme Grégoire nañ dugal page pub doog a soit ci mbalax mi laataa tey nag ki ma dalal moom star bi mu doon non tey ngeen di gis lu ngeen musul gis ci télé télé laa ne tey ngeen ciy gis lu ngeen musul dèjà tey gis ngeen lumière waaw sama xarit bi mu saw changé naa avis yaa fi ne ndax pàcc di wax na dëgg yow lan moo tax jëloo essai yi defar ko changé ko yow tamit yow bàcc na danga may nax rek yow tamit sama xarit nga mais danga may nax rek alaaji <laughs> Grégoire nañ dem page pub et on revient bàcc li woo ma ñu waxtaan woo ma ah réer te fulaak fayda moo ci ñoom waa Dakar way wi yee na ko moom el phénoméno Sidi Diop le mot mélodie d'inspiration impuisable le phénomène d'un parcours rocambolesque véritable bête de scène à Nangan Kaolack ce 11 décembre avec les 5 étoiles groupe Bambou Bess Le quart de ville sera rayonné de lueurs étincelantes dans tous les sens. Le tapis rouge qui sera déroulé sous le conditionnement de l'harmonie, de l'élégance et de la classe yi xeetu sañse. waa Saara fële ci Bongare Medina ca bee boor Ganda Bustaan ak Ndaan ni ñoom kenn du leen fa jiitu. laayla waa Kawul waa Kasnak waa Nangaan ci boppam ni ñoom ñooy Kaolack waa Ndar gu ndaw def seen délégation ay c'est super étoile ni leen ay kun fa jiitu du ngeen am ambiance bas cung ci biir Sidika l'homme à la voix pétillante de ville ak kan ne Ibro Ladio l'artiste du moment Bercy Saloum avec Sidi Diop et les 5 étoiles en live biir cœur de ville entrée 3000 VIP 5000 et 10 000 francs yi xeet na ba jolle ñu ne ci ànd ak Subatel musique no le patronage du président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky Sall, et sous le haut parrainage du président Idriss Seck, président du Conseil économique, social et environnemental, et de M. Abdoukarim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable, le groupe Calbas Consulting organise la 7e édition des Green Awards le vendredi 10 décembre au Pullman Hotel sur le thème Les effets des changements climatiques sur la santé. La nuit de l'écologie sous les couleurs de l'environnement pour célébrer les acteurs Une soirée de gala animée par des artistes de renom, occasion de rendre un vibrant hommage à Monsieur Ali Haïdar, directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. En prélude de la soirée des trophées de l'environnement, la pose de la première pierre de la Maison de l'environnement du Sénégal aura lieu le mercredi décembre à 12h dans la commune de Malekunda, une première en Afrique. Pour toute information, contactez le 77 561 63 56 ou au 78 290 41 86. Les Green Awards Agir écologique. asalaamaaleykum waa Kaolack Ndangaan li ko dalee Mbour Fatick yéeg romb Kaolack dem Kaffrine ñun ñëpp ñu ngi daje waat incha allah le 11 ci stade Lamine Gueye. ànd ci suñu système Ndogay ak équipe bam bu yànji bi ah gars yi ñoo leen ko digoon bu soobee yàlla dinañ ko def le 11 décembre Wally Ballago Seck ak Waram Daan son et lumière et eh, xam ngeen ma yëg bu soobee yàlla incha allah maa ngi beaucoup l'international OMG félicitations encore une fois eh, eh, moom lu mu génne rek sénégalais yi bëgg ko gën ko fonk machallah on adore cette chanson OMG merci beaucoup respect respect respect respect ayca eh, très rapidement fa nu jëmaat moom mooy Seeto Seet actuellement ça déchire également la grande diva Aby Ndour compagnie de Alioune Mbaye Nder waaye Allô, allô Eh, DJ Kheucha. Allô, allô Allô, oui. Tu dis j'écoute. Allô, allô Allô, oui, Kheucha. Non, non, non, da naan j'écoute. Allô, allô Oui, j'écoute. <laughs> Bu bu ci dugal wii gi neel j'écoute kese. Allô, allô J'écoute, Mes amis, amis. Ah, mais doom day. Ne la jàngal jàngoo xoolal ma lii rek dooni c'est ça. <laughs> Noo def. Eh, ba yaa ngi am jàmm. Eh, wali ba mi eeyi waali bamineri faramaren waali dëkk eh, eh, guédiawaay ah, eh, sa numéro waray ah e mon ami waali bamineri pamay tuloon leen ci télé bi de ah <laughs> joxaat ko waay doom yaay. <laughs> non damaa <laughs> ku bëgg lu yomb nga. yow yow daa say publicité fi nga bëgg jàllale léegi. maa bañ fayal fayal ba pare waaw noo def. non mais yaay mais xale yaa ngi jaar naa mais doom day tasa ma la waa mais. <laughs> mais yow nga ne nga ne nga ne man ak yow dañoo nduroo quoi yow. barki Serigne Saliou Mbacké danga envoyé ay message gars yi dañu di di mu message naan moom moo envoyé ma sa photo ma xool xam da ngaa niroo kasa. ah. ma leen koy envoyé si pet. mooy keroog bi ma joxee sa numéro noonu. si xale di gën suuf gaan di eh, eh, eh, nga jàpp xale yi leen jël de xale yi dañ lay wax rek ba xam da nga ndur ak xëcaa laa la. non ma mais gars yi ñoo ah, sama xale yi non lay laaj ñoom man lañ bëgg dañuy xool rek ba xam loolu lay wax lu leer laa leen sama xale yi laa wax dégg ngeen ma est-ce que. mais oui ma. waaw. mais yu ba na revanche loolu moom boo boo jaarul commercial tey moom du ma joxe sa tur sa bëgg lu yomb nga yow waaw ki nekk man ma Arif Assur bes tàq bëgg ma joxe waat numéro am. Eh, eh, sa frère laa gën ah non non. yàlla <laughs> eh, bi. waaw dama ne ñam nga ko mu neex boo ko bëggaatee ñam jaaral commercial. dégg nga ma ay ca ñu ngi koy gërëm bu baax a baax faramaaren boobu doon wootee bërki démb dafa woote euh, bizarrement ñu mayee numéro nii xam nga fois jaaykat yi foog ñu leen dimbali woote nii rek ma mayee numéro am lam ca am ci ay euh, message ak appel nee na mënu wax kenn euh, ba mu tax mu indiwaat élevage yu bees waaye élevage yu bees yooyu boo ko bëggee jaayaat faaw nga jaar commercial ngir mën ko jaay ñu dem seeti Abindour Aline Mbaye Nder Ndiolé pour votre Sacha, comment vas-tu Ça va bien et toi Ça va très bien. Macha Allah, c'est qui Bon tour bi moom dama koy leb. dama koy leb. voilà mais c'était juste pour souhaiter un happy birthday à mon mari d'amour. à ton mari d'amour. ah oui. donc euh, longue vie à lui. eh am na eh xaar xaar xaar yow la kan ci gëli <laughs> yow la ci kan waxal waxal ndax am na ñeneen ñuy seetaan. très bien non man madame Edbo mën naa fi nekk. yaa fi nekk. bu baax. yow loo tudd nga

nee na man doy naa ko foo yëkkati wu ko nga xëy na daf ma gis bëgg ma nee na man doy naa ko foo yëkkati wu ko nga xëy na su fekkee baax na bari yërmande fulan ci biir moo nekk ba baax na ànd bu yàgg ak sincérité ci fulla bi ci des yàlla baax na. jamais été aussi content dans ma vie yàlla xam na ko nag wax dëgg yàlla tey moom je suis hyper content xale bu jigéen bii yow xaw ma foo dëkk mais ku am fula nga ci sa bopp ñeneen gel yi nag yéen bu ngeen ñàkkee seen fula ak seen fayda te wootewu leen ci télé bi souhaité joyeux anniversaire Grégoire xam leen ne du ngeen tous kii moom gagné na bosam Grégoire instant yi nii gis ngeen ko ba may wax daf ma dagg parce que perturbé wu na xamatul fu mu ne moo tax gis nga fidélité luñ ko jëndee jar na ko soyez fidèle s'il vous plaît soyez fidèle infidélité baaxul man sama anniversaire xanaa ma bañ a dugg ci sama anniversaire sax man waaw ay bañ ci dugg 88 628 14 13 ñu jël ki ne ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa mais kii kan la yow. man la Binta Djili. Mr Djili. waaw wala Dista. oui mais Dista noo def. maa ngi fi. baa naka sa dugg daa. mu ngi dalax yaa ngi am jàmm. xasaa bëggee naa maa ngi lay bëggee fooy wote <laughs> maa ngi wootee xombal. yaa ngi ba xombal. waaw. li may yëg yaa ngi koy yëg. bu baax. yaa ngi kontaan. ma macha allah li may yëngal mi ngi saf. waaw mais bari na yéen ñëpp di ma laaj sama pull bi fu ma ko jëndee. Ah. waa jël leen numéro bi ma jox leen ko. waaw. jëlal 77. waaw. El Hadj Boukeba shop ah 261. 93 15. waaye moom xanaa kii la yor oto kii Nokia yu yàgg yi. 261 93 sama xarit bi. allo kontaan naa sama jigéen kenn du yow. ayca bi ngoogu élage bu Kéba Shop la nee naa leen pour sañse yu rafet yu nice yu chill yoo xam ne bu ngeen ko solee gars yi ni leen fu ngeen solee lii pull bu rafet semaine bi li ma leen naral laal ci ay pull yëpp ci moom la jóge li ngeen bay gis may sañse yëpp moom la élage kenn du yow sama xarit bi mbokkum yaay Kéba Shop 77 261 euh, maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax arrivage yu bees yi moom dina toj dëkk moom man maa la wax dina fi toj dëkk ayca euh, gré ñu xamante ni moom moo di Ibro Nadio puisque ça parle d'amour toujours ñu dem bëgg ci mbëggeel baax na ci yow mbëggeel mbëggeelal <laughs> nañ dem wala laa ju bàcc li ñu jël ki nekk ci ligne bi gërëm fan ga toll ak Leuz Shop 88 628 14 13 mbokk mi bonjour salaamaaleykum allo allo ayca kooku dem na ñu dem euh, seeti ki nga xamante ni moom moo di l'international euh, ki nga xam ni moom moo di euh, Ibrahima Diop pour le plaisir des téléspectateurs mais également maa ngi koy may galu Grégoire boobu nga xam ne dugg si na léegi wax dëgg yàlla wane cofeelam ci Grégoire kenn du yow sama jigéen kontaan naa ci yow xaw ma kan la may bëgg naa xam nga ñu ma présenté bari mais yow daal bëgg naa ci yow ayca Gré an dem ay waay ñaar ñi fi gis seen mbëggeel tey leen ci man su ma neexee maa ko nopp moom su ko neexee ma nopp wax lu leen neex loolu duñu te dem du tontu benn baja baja gis naa ko bëgg ko lu ci góobee gàrnoo li ne ci sama xol xamuloo ko toogal su ma yàlla bëggee na ma bàyyeeg yow chéri boy man duma tontu benn baja baja kon xale bi xale bi xale bi xale bi foo ko def kii ni mu ko gisee faras wan nam na la ji ko gi ma wan man ndeysaan ji ko gi ma wan man ndeysaan la patay teg ma ci yoon bu baax ak mooy lu ma tontu benn baja baja ndax gis nga béy bi wax ji bari na ma ñaan yàlla ma mosal mucc noonu yàlla aar mbëggeel la mbëggeel la 88 628 14 13 salaamaaleykum Bathily dama may sonnerie bi ci suuf salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo allo. allo oui. waaw mais ko kan la. man la Amina Thiam. Amina Thiam Babel Demba Thiam wala Thiam Dogo noo def. waa Thiam Demba Thiam. ba yaa ngi am jàmm. <laughs> maa ngi nii kontaan si yow. mais yéen a ngi bëgg. yaa ngi sañ eh, see. xasaa ci laa dëkk nag wax dëgg yàlla yii moom ci laa dëkk. waaw dama jaale la xasaa man chaque jour damay toog bàyyi ma cin la ca suuf di la. seetaan man ngeen bëgg fan ngay woote Amina. maa ngi woote HLM 5. yaa ngi ba HLM 5. waaw dama ko jaale la. amul benn problème na sa xol sedd Amina loo ko bëgg bëgg na la. gis nga dama laa mais ba bëgg ah, euh, mais noo gisee gel mais noo gisee gel Grégoire bi dugg di ko souhaité joyeux anniversaire kooku elle est digne daa. non dem toog mais xale bu jigéen mais xale bu Amina déglu ma wax la. Amina ah, mais xale ah. bu jigéen bi elle est de li mu def noonu la. waa diñ na moom am na fula moom. am na fula léegi indi la problème ñeneen ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla Grégoire tegu leen woon fenn. <laughs> très bien man dama kontaan tey tey moom ah. non tey moom kontaan naa. Kheucha man ko ñu daaba laa dëkk dégg nga. ah. ko ñu laa dëkk. man la jabaru daaba. la lan <laughs> yow la jabaru daaba waaw xaritu jabaram la ñoom Aïda Thiam bi moom. ah mais dama li nga gars yi da la xamul de. xool wi yëngale tàgg yi mais démb jàllale la ah hmm. amul benn problème mais Daba lii mosoo ma ko wax. yow wax yow ni waa kër mën nañuy seetaan Daba mais mais wuy ma wuy ma wuy ma. Daba ah. mosuma wax ni waa Gàlleem man la ñuy lool loolu naay sul. Daba dafa soof dafa de dafa bëri dafa bëri tiitar. xoolal loolu xam nga loolu lool loolu normalul waa léegi souhaiteel ma ko Astou na bon temps. lu mu tudd. Astou Ndiaye madame Rebeuss. Astou Ndiaye. naa ko souhaité léegi léegi. waaw Fatia yónnee <laughs> foo ma yónnee vidéo bi déggatuma ko ndeysaan Amina mbokkum yaay Dabba moom chéri Dabba la ndax jabaru Dabba jabaram la kon ñu koy kontaane mais Dabba yooyu bu amatee da ma koy wax parce que sa xarit yi nekk sa Espagne ñoom Ousa Diouf chéri Ndey Fatou papa euh, Ngennaar ak Massamba ña toog ca Espagne ñoom itam euh, jàkkaarloog seen télé di seetaan 11 13 nee la euh, c'est l'émission matinale la plus suivie véritablement fépp ci Afrique waaye àddina foo dem leen di indil raaya musique bi fii ci biir Parc des Princes 88 628 14 13 salaamaaleykum. maaleykum salaam. bonjour. ça va. waaw bien toi. ça bien. kii kan la. man la joli cœur Guérétois. Eh waay eh waay. alhamdulilah. <laughs> naka bës day rek ngay bës day. nga ni ma la joli teg coupé na ko ba eh, mais lii moom du yoon gërëm quoi waaye maa ngi kontaan waaye infidélité l'infidélité ne se pardonne pas ça se comprend yow xamoon nga ni di nga am bés ndoxaan gu metti gi nga nekke joli kër ngoog li ngeen gis keneen ñëw di ngeen ne <laughs> mbëggeel laa mbëggeel laa yóbbu ko ci Ibra Naajo mbëggeel bi ana keneen kuy ñëw 88 628 14 13 salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa ko kan la. man maa ñëwaat Aïssa Diallo. ah pour man joli kër la noo ay Aïssa. maa ngi fi. dama topp kaa bi di Aïssa yooyu yaa ngi si jàmm. fo fooy wootee si gërë yaa ci ay problème nag. maa génn sànq bi. Ah, mm-hmm. léegi bul coupé El Hadj Bàcc li jël sa numéro. waaw ok baax na. Aïssa kontaan ay ca jërëjëf jërëjëf tey sama xol bi dafa békk wax dëgg yàlla xam naa ni fii fi mu nekk nii lu ma waaye ñaan mën naa la ko may ndax euh, euh, euh, nit moom buy dund loo xam ne rafetul jekkul buñ ko ci jàppee <laughs> en flagrant délit dañ ko war a di ko publier pour ñëpp gis ko kon nag gré mbëggeel laa gi parti bu mujj boobu indi lu ma ko ngir yàlla ak Ibro ba noppi ñu doo ko dem on se chez vous dalal nag sama invité ñoo xamul ni mbëggeel la mbëggeel la sama waa su doon ay naax sax bëgg naax sax bëgg naa la ba pare ma ne wax sax ñoom dañoo xamul ni sama xol bi yow yaa ci man ñi ma bëgg bari nañu mën a jëkk leen ne fii yaa fii ma sa ne wuy wuy wuy yow xale bi jaral la la nii mu dexit mooy nga ko kon yow it nangu sa kon yow rek toujours bi lay ko mën na def sera la mu bi yaa fi rek toujours bi lay fi liggéey sera la fii yaa fi ne ndax li lay ne mooy li may ne xale yi wax kat moo fi mës a ne parce que wax dëgg yàlla ñoom bari nañu coow tàmbali na mi ngi may message naan ma doon nitu dara nit ñi wax dëgg yàlla sonn naa xale yëpp a ngi may message te lii lépp yow la su ma sañoon nag du demee nii ndax sama xarit nga woon yow xëcca man ak yow yàgg nañoo liggéey kon nag am na yoo xam ne jarul woon nga koy wax ci télé bi mais nag amul problème ndax nit ku nekk ak bësam man dëgg la dama infidèle am naa 3 ba 4 gel mais jarul woon nga koy wax télé mais gën dama dama koy wax li nga def moom moo normalul mu jarul nga may message te bu ma message daal bëgguma jot sa message 88 628 14 13 man nga ni bës bi sa bës la ki sëñ Tuubaa ay ca ñu dem seetaani li nga xam ne moom moo di onze Régions euh, chez vous ma xool yéen tam naka ngeen toogee ci euh, kër gi waaye nag tey surprise bi ma leen indil wax dëgg yàlla ko toog sa kër di nga xam ne lu musul am ci tele fii ci Sénégal Afrique wallahi musul am parce que je l'ai jamais vu man ku ci gis après mën nga ma ko ñu invité nit mu way way woo xamante ne ca biir way woo moom ca loolu loolu la ñëwee noonu musul am gré ñu dem li nga xamante ni moom moo di on serait chez ñu xool nit yi ñoom tamit noonu naka lañ toogee seen kër di seetaan ak li la jot yëpp ci ay defet tey ñu xool ko et on revient maa ngi ni taxaw ñu dem so waay sa anniversaire gën a waar xasaa sa anniversaire yàlla nga yàgg fee de am bës day uyu. mbaa yaa ngi am jàmm ngay waajal la. maa ngi waaw. waal bi xanaa la. waal sekk bi nga onze. dégg maay jot démb dégg Koura Fall ak dégg Demba sa dégg maay. di sasra en direct sur la mm-hmm. yow loo bëgg ticket. ticket. ticket laa bëgg ticket. bul coupé euh, Alaaji di jël sa numéro léegi léegi. VIP nag laa may. ah. waaw. bàccali bi nalal ma ko ci maman Sali nee ma léegi ma jox leen seen tur ñu jox ko ci kër VIP am foofu ca kaw la. fay merci ci Fofana. Ah. ay ca mangoogu maa ngi koy kontaanee bu baax a baax yéen ñi nekk kaw la toog di seetaan itam jël leen seen jëy laa lay doon doomu géejewaay bi ñu ngi nii di seetaan di je xëcca xëcca ñu ngi lay bëggee bu baree bari <laughs> géejewaay lañ dëkk ñun eh, yaa koy woyofal <laughs> ah. woyofal leen ko xëcca ñu lay bëggee lu baree bari ji xaale mu ji xaale

ñu ngi la ziare di la nuyu di la ziare bu wér a wér waaw ñu ngi ni on stressé bu waaw ñuy fël di falaale duñ nar def ko sax dañ koy bàyyi tant que préwoo mooy loolu duñ xam lan la ñuy def daal tànk que préwoo daal mooy loolu ah man moom boo taxee bañ dàq moom sama place ji moom xanaa di nga ma embauché <laughs> ñu ngi leen ñu di la ziare euh, di la ñaanal jàmm macha allah euh, bon yaa ngi yaa ngi yaa ngi tëj dëkk bi daal. vous respect à vous nu émission bi mel rek yéen la yéen ñi nga xam ne yéen ay toog di ko safoo di ko seetaan bés bu ne yal na yàlla fay leen yàlla mi am fay na leen yàlla fay ndaxte wax dëgg yàlla euh, def ngeen ko seen yëf te nanguwu leen dara dara dara yàqal leen ko kon nag man aw ma seen fay yàlla mi am fay yàlla leen yàlla fay yéen ñiy toog di ko seetaan fii ci Sénégal foofu ca Gambie foofu ca Mali foofu ca Mauritanie Burkina Faso Bénin Côte d'Ivoire euh, euh, Japon ah foofu nga xam ne moom moo di Italie Espagne France hmm, fépp ci àddina rek xam leen ni sama xol sedd na ci yéen yàlla yàlla def leen jàmm te maa ngi ñaan Grégoire ci sa bés bi nga xam ne mooy sa bés anniversaire vendredi yàlla naa leen indil trophée bi nee leen amin ku waay toog rek neel amin ndaxte trophée Music Awards la euh, te ku ne xam na ni télévision yi ñu ci boole euh, mooy télévision yi ndaw yi damay kalaas waaw ay moom dañ koo dindi <laughs> ndax dégg naa ñoom <laughs> boolewuñ leen ci émission talk show du ngeen def émission yu baax yéen tamit ñu boole leen waaw ñetti télé yooyu laa ko séqal DTV ak Sen TV du coup xam naa ni euh, ñoom sax xam nañ ñi maa gën a jekk ci gagné ko te gëm naa ni dama koy gagné parce que vote yi a voté voté voté bay bëgg a dee kon nag pas dinañ ko gagné laataa sama artiste bi di ci Parc des Princes ma xool rubrique TikTok très rapidement Grégoire ñu doog a ñëw ci sunu artiste ndaanaan bi nga xam ne tey dama koy jox alliance man je vais ma marier avec elle waaw dama ko déclarer foofa daal de jolli ñu dem xool rubrique TikTok et on revient c'est parti. ayca bu fekkee ni euh, nooyul ndeysaan Grégoire dafa ne ci ay jafe-jafe difficulté da ngay jug ayca euh, l' artiste da ngay jug euh, daagu dugg jaar na la ca biir Parc des Princes moom duggagul woon mi ngi topp l' international bugguma wax tur bi ndax wax dëgg yàlla comme que kër gi yëpp ñi ngi toog di ko seetaan xam nga nag artiste bi tey buy dugg si Grégoire man maa ko war a dugal maa ko war a dugal ba pare ah, génn donc da ngay ñun ñaar dañuy ànd ku ci nekk li la mett li la yow nga wax ko kon ñun ma ni bu ñun ñaar dañuy ànd ku ci nekk li la mett li mett ci yow nga wax ko kon ñun ñaar duñ dem man chaque jour dama lay woo téléphone bi sa téléphone bi di sone rek naan ma bul voté te laa wal wakaal de bul voté atee laa wal wakaal de di ma bëgg a rey ñonk yu góor nga nga dem doxaan si xale jigéen ñi rafet ñi te bàyyi jigéen ñu ñaaw ñi yow tax lii sa sama yaay ko waxoo conseillé ko woon di ayoo ah, di ma <laughs> waxoo bi ngay takkee waxoo ko mu góor yi rafet cest man ak yow ak femme ñun ñëpp nu la xam da nga def ma ne si ndax yow xanaa nga liggéey doo wàcc mu ko maa lay maa lay waxal nu nga tontu da nga koy lii dong da nga koy lii pat da ngay tontu. waaw mais yi jaru ko ak yenn affaire yi ngay wax di dugg ci fii privé jàmbur sa alal la sàcc amagoo ci lu la leer dox ci li nga. mais mais mais tamit. non non non non non. non non dama ko déglu dama ko déglu mais yaa yaa ngi bëgg nekk seetaane. non doonuma seetaane non non non bëgg ma lii. non doonuma seetaane. non non arrêtal. doonuma seetaane teel sa loxo. arrêtal ñu waxtaan ñu ñu liggéey def ko ci respect. arrêtal déedéet teel sa loxo rek ñu waxtaan fu la waxu doonuma seetaane. toutefois ñu génnee vidéo Fa Aïdara euh, di nga gi waaw kër yi rek lan la <laughs> nee na day fayu comme que maa li mu def laa doon wax nee na léegi euh, day fayu quoi vu que génne nañu Fa Aïdara rek daf may defar ay kër ak Fa arrête de faire genre mon gars kii c'est ma sœur waaw Fa c'est ma sœur foofa toj euh, merci beaucoup à mes chers téléspectateurs alors je vous l'avais promis aujourd'hui dana doon jour spécial ci yéen ndaxte dinaa leen voyager loo un partout dans le monde seen ay cerveau laay yóbbu ngeen gis artiste boo xamante ni artiste complet dafa war a am ñi da nga war a complet ci lépp boo génnee œuvre œuvre bi di def buzz sur TikTok sur Instagram sur les sur sur tous les réseaux noo xoolal da nga war a ñëw wanewaat loolu à la télé alors pour votre plaisir les amis amis chers téléspectateurs ban son actuellement moom mooy def buzz sur la toile ci wàllu mariage ku am jëkkër ku nekk lan ngay TikTok moom laa leen invité c'est une star planétaire pour moi parce qu'elle chante hyper bien stylé ba pare bëgg li muy def xam ko mën ko tey nag dama koy jox sama alliance mi ngi ni ma takk sama loxo bi xam naa du ngeen ko gis waaw mi ngi noonu weex bi dama koy takkal en direct toog leen xool l'international et ici au Parc des Princes allez ça même voici Lady Mouna Sey <laughs> Munas ba ñu doone xale ba léegi la ñu bëggante woon léegi màgg nañ mu bëgg ma faa soxna Euh, c'est vrai que ni présenté naa ko ba pare mais faw ma jëli ko aussi ndaxte et c'est une reine aujourd'hui regardez euh, ak robe bi nga xam ne moom la ma indil pour ma takkal ko alliance bi les amis pour votre plaisir c'est reparti Mr Grégoire on y va son machallah elle se nomme tout simplement Lady Mounas Lady xaaral ma jàppale la parce que robe bi wax dëgg yàlla xaw naa gudd lool lool ñool ni ma léegi da ngay demee ne le ma xëcc ko nii oh. nank rek ma wan leen ayca leen taxawel noonu mais mais léegi robe bi diisul. <laughs> trop. ah ama sànni lii tamit ci ginnaaw nii tuuti. coono la de waaye Lady Mounass une première en Afrique de voir véritablement mm. euh, benn artiste ci œuvre am mu ñëw ak robe ci télé et c'est sur la 2 la télévision autrement je vous l'avais dit quand c'est important c'est toujours sur la 2 actuellement cette chanson cartonne un peu partout dans le monde bonjour à toutes et tous encore une fois et bienvenue euh, Lady ñi ngi lay kontaane bu baax a baax ma bàyyi la yi nga xam ni euh, ñi ngi toog ñoom itam seen kër di la seetaan mm, très rapidement Sénégal salaamaaleykum Sénégal mm-hmm. salaamaaleykum àddina mm-hmm. di la nuyu xësla ah. di nuyu téléspectateur 2STV yëpp eh. di kontaan sama teewaay fii si 11 13 xam nga 11 13 ni mel Sénégal dëgg la cofoo ko de <laughs> dëgg la lu tax cofoo ko ba indi sa robe ndax xam naa ne bu doon beneen plateau la doo ko sol waaw parce que dafa nekk émission bu xew si jamono. dëgg la bi ñëpp di bàyyi xel. parce que dans le monde foo dem. dëgg la xam nga yow macha allah ñëpp la bëgg. Hmm. te ñi lay suivre dafa bëri. Hmm. moo tax ma ñëw indi la bii. <laughs> en tout cas man plaisir bi yëpp mi ngi ci man ndaxte wax dëgg yàlla xam naa ne bu doon dem ci yeneen télé du ko fa sol fii rek la koy solee ci 11 13 gars mën a bëgg man tamit am naa mbégte donc Lady actuellement cette chanson ça déchire mais nous allons un petit peu revenir euh, ci yenn œuvre euh, ban daan gis ak léegi c'est diamétralement opposé on va se rappeler un petit peu de Euh, euh, euh, ci chans chanson bi mu doon wayee li nga xam ni moom moo di banaana <laughs> tey banaana gi daa mel na dafa ñor ba banaana gi indil na la guro banaana googu nga daan waaye banaana lan la ba pare lan moo tax tey ci contexte boobu nga doon wayee wayetoo ci léegi gis nañ loolu dafa mel ne boobu da doon foo di kaf di di ree ak xale bi nga doon waay parce que comme li ma wax rek que ça hmm. artiste ngay créer hmm. donc banaana bi dama ko defoon pour créer dara hmm. communication la comme li nga wax rek c'est vrai que madame bi différent na ak yenn type yu bëri. Mm. te comme actuellement surtout période bi mm. mariage xale yi léegi tendance la leen takk rek. voilà mariage bëri na trop trop. Ah, waaw donc moo tax ma ne ak décembre bi nii xaa ñu profité génne madame bi. Mm. te effectivement gis naa ni def na effet si TikTok xale yi Dakar yëpp macha allah. ñu ngi si TikTok. mais rawoon na ma ji nag de. ñoo ko ñoo ko waroon clip man ak moom ñu toog. <laughs> mais clip bi yaa ko yàq quoi léegi. lan nga yàq suñu clip bi man ak waaw gis nga ñoo ko waroon mais tey lan ko war a TikTok lu toog incha allah. <laughs> alors euh, gis nañu actuellement xale yi Sénégal yëpp jël nañ ko. ñi mm. marié ak ñi marié wul yëpp ndax gis nañ sax saan yi nga xam ni euh, ñu ngi kar seen bopp. <laughs> man moom euh, xale yi yi jël son bi sax jël jël ci xëcca donc xam leen ni man seen jëkkër laa déjà man moom seen jëkkër laa mais xale yu bari tey ñi ñi ngi koy foowee jël ko di di di TikTok ah jël ay xale yu góor jël di leen TikTok ñoo xam ni sax seen ay copains lañu. quest bi ni mel yaa ngi ko doon xaar ci son bile. waaye c'est vrai que kii na ma trop kontaan naa hmm. donc xalaatu moon sax dina demee nii mais depuis bi ñu ko njëkkee rek di nuyu influenceurs yi comme ku si mel ni Gora. Hmm. Momar Moustiquaire après mu def ampleur. Hmm. déjà def naa ay 900000 vues. gis naa non tey day def 1 million pour man mi. a euh, ak sa bi. di kontaan rek. donc li mooy wane ni xale yi bëgg nañ sëy. te jigéen bu nekk da ngay am jëkkër. di wax gars yi nag na ngeen takk si xale yi voilà. <laughs> mi ngi noonu une très belle chanson d'où vient euh, euh, euh, nga xam ne moom moo di l'inspiration c'est-à-dire c'est vrai que ni ku ci nekk am nga fa ngay woyee ak na ngay woyee. Mhm. kan moo la jox idée bi ni mel ba nga woy ci mbëggeel woy ci amour. Mhm. woy ci loo xam ne mariage la. waaye dama mosoon dem tournée mooy tournée bi ma demoon. waaw ay voyage rek nag moom donc bi ma toogee sama chambre d'hôtel damay wéet xam nga man su ma damay inspiré wu. donc may déglu. Mm. may xalaat ne xaaral pourquoi pas du ma woy genre mariage bi ma ñibbisee si laa gisanteeg sama benn rakk bu baax King P Beat ak sama xarit sama frère muy Prince artiste boole ma King ma dem King aussi jàpp sa affaire bi daf jox ma lyrics yi ñu def affaire bi mu nice di nuyu aussi Boups ki def clip bi moom aussi sama frère bu baax vraiment équipe bu macha allah ba doole jàpp nañ si daal mm. fa la inspiration bi duggee ah ci chambre d'hôtel bi nga toog nii rek xalaat ko. xalaat ko rek ah, pour man sax mariage day waaj a am ci sa diggante waaj wala nu mu demee. <laughs> waaw si yoon bi nag. ah yaa ci yoon bi waaye. yee te te gerogaat mi ma doon wax léegi bu ñaatee bëgg naa sa xarit gerogaat tut ko ne non. <laughs> ah waaw léegi gerte est-ce que jël gi rek <laughs> léegi léegi bu ko may fit waaye yow kooku daf lak cëkk di gërëm fii la lay toll ci kii yaa ay njool yi nekk fi fii ay ndàmba yi fii ay ay ay ay ay ñoom lu mu tuddee sax sama xarit bi béy di ñoom ñëpp a ngi fii toog nii am xoola béy waaw béy di doo yëngatu béy di ba mu takkee ba tey waxatul dara ci jë man daal jaaxal na ma gars yi fi nga waxu gërëm ah non bàyyi ma jël gërëm alors actuellement aussi ça déchire sur YouTube euh, mm-hmm. xale yi ñu ngi koy seetaan actuellement nous sommes en direct sur Facebook euh, xale yi yéen tam maa ngi ñëw léegi léegi euh, si seen ay avis ak commentaires Niger euh, ci li nga xam ni waxtaan ngeen ko ci way wile ndaxte euh, ça déchire aussi gis na nañu euh, cette partie bi ngay waxee léegi am naa jëkkër gré préparé watal ma cette partie bien mm. avant que moom ñuy dugg ci page YouTube bam fan la yu affaire bi neex mm. parce que partie boobu dafa neex mu mën nu ko waayal mayala nu ko tuuti tuuti gré am léegi am naa jëkkër noo waxee loolu <laughs> léegi am naa jëkkër indi nañ ma guuroo léegi madame la sama rêve réalisé na béy léegi madame la madame madame la madame madame la léegi madame la. dëgg la waay de barki yàlla dina fi nax nit ñi di fi nax nit ñi ba indi fi euh, euh, euh, trophée yu ndul xam fen macha allah c'est une très belle chanson d'amour boo xam ni moi-même j'ai adoré et j'ai aimé. Mm. donc pour xale yi nga xam ne ñu ngi toog ak mag ji toog seen kër di seetaan bëgg ko seetaan sur YouTube naka la ñu mën a def ñoom pour seetaan ko. waaw ñoom dañuy dem sama chaine YouTube Lady Mounas. Mm-hmm. bu ñu demee dinañ ko gis Instagram même chose Lady mm-hmm. Mounas mm-hmm. TikTok. voilà gis naa ne aussi fan yi macha allah yenn xale jigéen yi sax ñu ngi may woo ndeysaan. ndeysaan naan ma dañ bëgg nga ñëw sunu. mariage mariage sama réception nga woyal ma. waaw waaw nag da ngay joxe numéro bi nga xam ne sa numéro manager. Mhm. bi nga xam ni ku que mariage bi bari na. man gis naa fi ay takk yu bari yuñ ma yëgal. yoo xam ne war naa ko présenté donc avec cette chanson là euh, tu vas accompagner la mariée. avec cette chanson. de dire léegi madame la gars yi ñëw tàcc donc yow li nga war a mën a lekk ci décembre bi kenn du ko lekk. <laughs> joxeel numéro manager bi te bu boo juumee ci numéro bi mooy euh, euh, yàqule nga ndax ñii di toog nii am na ñu war a marié ñoo xam ne bëgg nañ ko boole ak yow vas-y dëgg la léegi dañuy joxe numéro bi nga xamante ne si nga ñuy jotee hmm. mooy 77 77 839 839 91 91 06 06 waxaat ko 77 77 839 839 91 91 06 06 léegi nag bu sama santa ci mariage yi ñaata la parce que man tamit dama la ko jàllaleel ci loolu daa ba du ñu wax te dëgg sama pourcentage ci mariage benn mariage bu ne ñaata laa ci am ñaata pourcentage yow déjà Ah. yow da nga bokk si man. ah donc loo def rek noonu la. ah waaw man am naa 10 pour cent dégg nga. d'accord yow bàyyi naa lépp solo 10 mariage yëpp am naa ko ci 10 pour cent yoo xam ni tojul bënul euh, léegi euh, ñu xool euh, sur Facebook xale yi naka la ñu toogee ak lan la ñu am ci seen li nga waa gërëm dinaa ñëw ci année fii avant may tàggoo léegi léegi ñu xool xale yi ñoom naka la ñu amee avis ak ci sa œuvre bi nga xam ni jot nga ko génn ñun du ñu nekk lu bari sax sur Facebook parce que c'est émission boo xamante ni musicale la donc c'est mm. interdit ci wàllu plateforme yi ni mel ñuy mm. dugal ay œuvre yoo xam ni Euh, œuvre artistes yi la donc dañ koy bloqué c'est pourquoi des mm. euh, ci deuxième partie yi rek la ñuy nekk sur euh, en live donc ma dem xool mm, xale yi seen jotaay foofu noonu gis nga sur Facebook mu ngoogu donc commentaire yaa ngoogu di di di jolli bokk na ci vraiment moo ngi nice rafet na loolu xëcha maa la bëgg Lady tu es très belle la ah, Lady xale yi na j'aime la chanson mais vraiment tu es madame ou bien qui elle n'est pas encore madame <laughs> donc moom mademoiselle la vraiment mi ngi nice ñu ngi lay kontaane Lady une très belle chanson et une voix extraordinaire laf cat yal na yàlla yokk succès bi nee ko amin euh, donc DJ Kheucha a es le meilleur waaw ah, loolu moom wax yàlla dinaa leen ko woon ci kàttun yàlla 2STV euh, euh, Cœur Rouge macha allah toute ravissante nañu mayaat tuuti waay ci ni mu ko waxee léegi madame la mayaat leen ko laata may souhaité xale yi seen joyeux anniversaire léegi am naa jëkkër indil nañ ma guuro sama rêve réalisé na béy léegi madame la madame madame la madame madame la léegi madame la. mais xanaa da nga defaraat sa baat bi <laughs> non bizarrement il a une très belle voix maintenant. il a une très belle voix. da nga ko da nga ko liggéeyaat. <laughs> waaw xam nga rek ñu ngi liggéey. foo ne ci suuf. ki ngi liggéey rek te. di dem ay géej yu yuuxu ak yooyu rek. da ah. baax Grégoire ma xool xale yi anniversaire euh, loge dana ko teel a indil léegi ci début bi ñu leen koy mën a souhaiter ñoom ñi mm-hmm. anniversaire ñu xool leen laataa ñuy tàggoo Zeyna. bon anniversaire joyeux anniversaire à toi Zeyna et que ces nouvelles bougies dissipées peine et soucis beaucoup bonheur ak euh, moom moo bokk ci anniversaire yi Sali yow itam yàlla yàlla jàmmal la dund euh, la totale ñu ngi la koy ñaanal joyeux anniversaire Sali Khat ak kan aussi mooy fêté anniversaire am tey bégge bu baax a baax kooku nga xam ni moom moo di Buri Ndiaye ñii ñëpp ñoom tamit ay jumelu mm-hmm. euh, euh, Grégoire la ñu Buri yow itam ñu ngi lay souhaiter la totale ah happy birthday to you Amina Gueye joyeux anniversaire et cette nouvelle bougie dissipe tes et soucis t'apporte beaucoup de bonheur euh, mm-hmm. Penda joyeux anniversaire également yal na yàlla defal la jàmm ñi ngi lay mm-hmm. souhaiter vraiment la totale et cette nouvelle bougie dissipe tes et soucis bokk na également ci ki nga xamante ni moom moo di ca c'est l'international Mogassion le plus court de sa graine euh, de génération mais le plus jantal l'homme des 14 ou euh, xaw ma 15 jeunes yoo xam te ni yëpp yaa ngi leen di doxaan yàlla yàlla defal la jàmm sama xarit bi joyeux anniversaire happy birthday to you Grégoire Ngoogu moo mën a sant sama xarit bi loolu dul li ma leen doon wax léegi léegi dama doon tooñ rek moom benn gars rek la am euh, donc anniversaire am la il fallait que ñu délirer wax ko lu ñu saf mais vraiment euh, c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un que j'apprécie depuis bu leer rek la ko te kon maman madame Sarr maman yaay boy gâteau bi nañ ko waaj léegi léegi ñu souffleel ko ko demee moom mën ko jàllale à la télé parce que Grégoire mérite plus que sax benn gâteau kon ñu ngi koy mm-hmm. gërëm bu baax Lady euh, kontaan naa merci d'être venu lan ngay préparer davantage avant ngay tàggoo waaw déjà maa ngi war a ngi maa ngi war a joué jiwaat concert gi ne di nuyu sama frère déjà Takana Zayen mu ngi fii sax Sénégal ñëw na moom aussi maa ngi war a dellu foofu mm. di nuyu képp ku may seetaan waaye damay nuyu sama bébé bu baax mm. Pierrette tey mm. def anniversaire am tey maa ngi koy souhaiter joyeux anniversaire di nuyu sama xarit Anne ah ñi may ñëpp su ma limee damay juum di nuyu bi nga xamante ne moo def hmm. P ku may seetaan merci beaucoup léegi ñoom nanu xaar suñu TikTok man ak yow d'accord léegi léegi TikTok bi dina jàll merci beaucoup à Dabo merci beaucoup à l'international Baydi merci beaucoup à maman euh, Rokhaya ñi ngi koy gërëm Alaaji Mbarak mu baax mi sama xarit bi yàlla na yàlla jàmmal la merci beaucoup à l'international Alaaji Bacili et merci beaucoup à Modou Sow waaye euh, dama la doon nax rek mais sa yi nga taf ñii ci lamp dimbali ñu nga dindi ko ndaxte ko dëgg yàlla bàcc lee fi ne xamoon nga ne ci feeb foo ma jàmbaat la ko merci à toutes et tous et rendez-vous incha allah demain Lamine Kébé le Baye Fall climatisé maa ngi lay souhaiter la totale mbokkum yaayu Penda Niang ki nga xam ne moom moo di Abdou euh, ngi lay souhaiter un très bon anniversaire ak sama grand-mère yëpp mère Nox maam Fally mère Adja moi maa ngi lay di nuyu bon anniversaire et à demain les amis bége ne première dame bi. waa léegi loo bëgg. dañu koy takkal wujju ñun ay julit lañu te góor dañ koy bokk. lala lu xew lu tax taxaw ni mel ne ko jaaxle. j'ai réfléchi.